being a letter Minsador, it reads, um, Dear Black Queen, um, I am uh, 20 years old, uh, but my father uh, me to uh, get married to a man who is uh, 65 years old because um, he is uh, financially rich and also a very powerful politician. Uh, but to be honest, there is someone that I love so much um, and um, want to get married to. Um, I tried by all means to convince my father so that at least uh, he can understand my feelings, but he said no to it. Right now, I am thinking of, um, you know, running away from the family, or if I can even commit suicide, I will do it because mm? I cannot just marry to that man. <laughs> No, Padalotina, Ay, ñun fuñ jëm ak marriage ak love. You see? Ay, ñun nak xoolal ma moom bi xam nga nu ko ah. moo ey moo yey. nga ne naan kii lu wax yow. bu ko ko wax de. kan lay nobanteel mu ne. koy bëgganteel. kii daal mu ne. mu ne moom. seet te Ah, waaye toppam xam nga dafa ah, ah, dafa dafa bëgg pour mu sëy ak góor boo xamante ne comme xam nga 65 years la am. moom tuuti am waaw kooku dafa mm-hmm. am alal torop ba pare xam nga politicien la boo xamante ne dafa am doole ba pare nit ñi ñëpp ko xam. Mm. waaye moom am na koo xamante ne nag kooku la nopp already te kooku la bëgg a sëyal but the father comme xam nga dafa insist na comme xam nga now it must be that man. so mom legi comme hanga lum buga def moy hanga dafa buga run away from the family ah ya, dead open na eh? hanga mu try hanga even to commit suicide because hanga ya tere bu ko dara jëral mu jël bakena ak rew mi tawlu ni xale jigé dañ wara té ci lu bari ndaysan dafa te bëgg yombut ndaysan am nga angal dafa na love is a crime ci Allah boko déggé ak dégg dégg la laaj mm-hmm. gis nga war na di góor bu ko mën a suturaal. war na di tànn góor bëgg. da nga mag a xale dafa neex de. nga nekk xale bu jigéen mag sëy la dalay lay waaye bu la xale bu góor sëyee sa morom. te bëgg la torop. moo tax tey sëy yu bari duñ am samedi dimanche. bëgg nit ak xemem ko du benn. jigéen boo ko xememee boo paree moom danga koy bàyyi. <laughs> doo soo ci bëgg dara. Eh, est-ce que buur bëgg ngi am ba tey. non bëgg am na.